Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di waaye moom itam murid la di ab Baay Faal at mu jot muy amal cant fi nga xamante ne bi mooy këram gi ci Touba Mbacké tey moom lañ leen fas yéene toppal tout au long cas de cette nuit ànd ak sama caméraman Ousmane ñu fas yéene leen toppal cante gi nga xamante ne bi Serigne Modou Faye Baay Faal da koy def ngir feddali kóllëreem ak Serigne Touba waaye yaakaaram jooju nga xamante ne bi mooy Cheikh Ibra Fall ak sëriñam Serigne Moutala bàmmeeli Tuuba yaa koy jooy ngir am nan gan ko mag doro lool Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw Mbakke dem na dinaana keroog ba Sëriñ Saaliw Mbakke mu baama wu jëm boroomam

keroog ba sëriñ Saliou Mbacké ma baax ma wuy de borom mboolem ko gis na nga bëgg na la ilaha illallah mën ko yegale ngir dem sëriñ Saliou Mbacké gi daal imanoo sëriñ Saliou sëriñ Saliou Serigne Saliou wa Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacké dem na dinaana ay Baye Sall Serigne Saliou Mbacké nee na woon suma leen di doo suma leen di doo suma leen di doo dina déggandiku abu diir xaar leen sari sari gari na Mbàkke Sëriñ Saaliw Mbàkke nee na su ma leen di doon ma leen di doon dina déggandiku su ma demee ba gisatu ma leen bay saaru dina dëpp ànd ak yéen wane mënu ma dem ba leen magalam sëñ Saaliw borom jàpp ndal boo adnaana borom jàppandal borom doka borom xabaana sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw Mbàkke dem na dinaana lanoo ko may baajul waate wa karam بدو جدال ويجك ويد من بمولاي لنك ماي باجولي واكي وغرم بدو جدال ويجك ويد من بمولاي أماننا ويدك أو جنب te ku ko suuf suuf su ko jébalaale da dana gën Cheikh Ibra Fall daa bay maam Seynabou Ndiaye kore naay Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra maami seex andi xadi faal seex ibra faal gore naay seex ibra faal seex ibra faal maami seex amu moodu musa seex amu moodu musa faal seex ibra Cheikh tey ñu ngi la fekk ci cant bi nga xamante ne bii vraiment daayira bi ñu ko organisé donc cantu Serigne Modou Faye euh, lan nga xam ci jëmm jooju Serigne Modou Faye. Serigne xanaa baax yaatu bëgg nit ñi chaque événement mu rey ay nagam jox waa koñ bi ñëpp wax dëgg fa yàlla képp kum tànn ci koñ bi dimbali baax na yaatu na bëgg na ay rakam fonk na ay yaayam dëgg fa yàlla. kon moom dafay def social ci koñ bi ça veut dire dafay dimbale ñi nga xamante ne bi ñoom la bokkal gox waaw day dimbale ñëpp ñi nga xamante ne si ñoom la bokkal gox bi wax dëgg fa yàlla moom moom ku baax la te itam Baye Fall nga en tout yéen lan ngeen namm ci cant bi nga xam ne organiser ngeen ko nii et puis yeneen année di ñëw lan ngeen fas yéene defaat aussi vraiment gën a góorgóorlu ci ci côté cant bi. waa xanaa rek ñaar yàlla rek mu gën a gën a gën a gën a a neex yaa ah. ñu gën a yàlla yokk xéewal gi mu gën a saawan baawaan ñu woo jàngkat yu mag yëpp ñu ñëw jàng ñaana sëñ Modou Faye Baye Fall yàlla yokk ay xéewalam may gudd fan ak wér li daal moo xam yàlla na ko yàlla defal. amiin waay merci kontaan na organisé euh, ci 18 safar euh, lan nga ñuy wax ci jëmm jooj di Serigne Modou Faye Baye Fall. ah wax dëgg de sëñ Modou daa nekk nit koo xamante ne xam bu ñuy wax ci moom sax leneen la parce que affaire yi commencé wul fii quoi ñun ñu ngi dëkk Dakar jàmm gën tablo xaadim ñun ak moom ñu bokk koñ cant yi nag yàgg na. mais nag bu ñu jógee Dakar bàyyi suñu yitte yëpp maagal xam ñëpp xam nañ ne woon dimanche la ñu ngi fi ba ba tey di de kon xam nga ne euh, sëñ Modou ji nañu loo xamante ne kenn xamul kenn xamul nu ko mën a waxee wax dëgg fa yàlla boo gisee gaa yëpp gaa yëpp ñu ngi fi sama bi ñëpp ñëpp ñëpp teew nañ muy ku baax ku oyof di ku wàccee boppam wax dëgg fa yàlla wax ci moom daal day tiis Modou Modou Modou ñëpp la wax dëgg fa yàlla Touba Dakar fépp wax dëgg. jàmm gën ngeen jóge la te moom aussi ku xam Serigne léegi xam jamono bi ni ñi di aj ay mbagg ak mais moom dafa wàcce boppam comme ni nga ko waxee naka la nekkee ngeen biir jàmm gën. Euh, barki Cheikh Rafal euh, Modou ak mbër yi Modou ak joueur yi Modou bàyyiwul kenn la preuve en boo ñëwee fii nii ci màggal gi ci këram la ñuy daal Serigne la mais mi ngi ci waañ bi mi ngi ànd ak xale yi mi ci lépp wàccee boppam boo ko gisee buñ ne la kii sëriñ la danga naan déedéet parce que dañuy dañuy esati sax ne diw mooy suñ sëriñ mais nit ñi duñ ko mën a gën ngir ni mu wàccee wàccee boppam wax dëgg fa yàlla di ko ñaanal yàlla daal lii mu doon lu kawe njortam cant yi di gën a di gën a saawaan di baawaan ci barke Cheikh Fall mi sëriñam bi sëñ moo du fay moo ko organisé ci 18 safar euh, lan nga xam ci jëmm ji nga xamante ne bi euh, moo organisé cant yi muy Serigne moo Faye Baye Fall. Ah, macha allah kooku bu ngeen waxee ci moom damay sawar pour tontu ci euh, doon na nit koo xam ne nii lu waay ji wax ci moom ci lu baax rek am na lu des maanaam liñ naan sëb la la ko bënn mu ngi ci biir ndax Baye Fall la fonk na yoonu murit laabir na am na yar te li ma gën a neex si moom dafa fonk ay waajuram te yoonu sëñ bi daf ñuy dox lu doy waar a doy waar surtout gën a bëgg ki nga xam ne moom la gën a jokk muy sëñ Moutalla Fall du ma sa woote mukk mukk mukk mu des ginnaaw Modou Fall daal dañaan ko gàccaa ngaalaama ci lu baax parce moom macha allah man nag dëkkandoo laa te nee dëkkandoo moo jur mbokk jii boo jaaxlee balaa sa mbokk a teew dëkkandoo yi njëkk teew kon Modou Faye dañuy sawar pour wax ci moom lu baax. waaw ah, sëñ Modou Faye moom yaakaar naa su may wax ci moom tey jii du ma fi jógee wax dëgg eh. ndaxte bañ a xamante boobu waaw na lool lool lool sax wax dëgg yàlla te nit ki moom wax dëgg eh, melokaan bi ma xam ci moom rek démb moom laa xam ci moom tey wax dëgg mu nekk nit koo xamante ni wax dëgg fa yàlla nit ku baax nit ku yaatu nit koo xamante ni wax dëgg fa yàlla su la gisee rek dara nag téye la def la ci boppam def la ni boppam. wax dëgg fa yàlla ñun fii dal bi fii dal bi fii nii yëpp wax dëgg fa yàlla bu ma fii dal yàgg na ba ma xamanteeg moom mën naa ne at bi ma xamanteeg moom laa commencé dal ci moom wax dëgg fa yàlla mosut ñaaw at bu ñëw day dàq morom mi wax dëgg yàlla gars yi ñu ngi si fii ñu mën a ak gars yëpp ñoo fi dalandoo chaque at. alors moom euh, jàmm gën naka la nekkee ak yéen foofu. waaw jàmm gën moom sëñ Modou Faye moom wax dëgg fa yàlla nit kase la nitu kase daal laa xam ci moom ba dëfee yàlla Modou fay nit ku baax la waaw nit ki yaatu la waa nit ko xam te soo ñëwee tis ko say problème mu lijjanti mu taxaw ci wax dëgg su ko mënee def defal la ko te yàlla rek tax mu nekk na Baye Fall wax dëgg yàlla baay Fall rek laa xam ci moom taalibe war na yàlla nit ku baax baax a baax sax. Baye Fall bi muy woote dëgg la daal. bu wér péng loolu moom maa koy seedal wax dëgg yàlla nit kase la nit ku baax Baye Fall ok Serigne Modou Faye Baye Fall euh, ginnaaw bu ñu euh, assisté nag li nga xamante ne bi mooy cant gi nga xamante ne bi da koy amal fii ci Euh, koñ bi chaque année euh, ginnaaw 18 safar moom itam nga ci euh, santale Serigne Touba yàlla comme ni nga koy faral di defee di àndandoo sa ay mbokk taalibe waaye tam àndandoo ki nga xamante ne bi mooy sa sëriñ te nga koy tiitaroo sa su nekk ñëpp xam ko ginnaaw bi cant gi weesu ak màggal gi sëriñ moo Modou lan lay yëkkati comme ay kàddu ngërëm jëmale ci ñi nga xamante ne bi ñoo assisté woon ngi lay nuyu di la siyaare di nuyu ñëpp Euh, di ñaan ci réew mi jàmm di nuyu sama sëriñ sëñ Mourtala Fall comme ni nga ko waxee di ko ñaanal gudd fan ak wér sim naa itam foog séeréer rab xëpp xool naa bi ino séeréer inwe sim nang te jokaatango njal layaa taayee inwe sante a fop ngid ma fop waa sëñ Xaadim waxe gi kàddu yi du mën a bëri ndax luñ fi waroon a wax rek mbokki taalibe bi yëpp wax nañ ko euh, xanaa di ñaan yàlla rek fekkewaat ko yàlla suñ borom yóbbuwaat ñu ci ba mu ay ay ati ati atat muy at yu bari di ñaan yàlla gudd fan di ñaan itam képp koo xam ne teew na fi ci bis bi yàlla suñ boroom yokk la wéral la kàttanal la dooleel la lépp lu fi waaye jëf itam suñu boroom ful fulal la ko fulal la ko yokkal la ko di ñaan yàlla itam bépp aajo bu fi nit indi rek yàlla suñu boroom saafaraal ko ko ndax bis bi bisu cant la bis bi bisu ndigal la te yaakaar naa ne bisu cant ak ndigal lépp lu ci waay jëf ka la digal nga def ko yaakaar naa ne am na ak fay ndigal itam képp ku koy jëfe rek euh, di nga am ngërëm kon yooyu ñaar yooyu nga xam ne moom moo ëmb bis bi rek dafa mot ndax bis bi sëñ Tuubaa moo ko digle moo ko digle euh, ñu santale ko ci yàlla kon bisu cant la ak bisu ndigal ndigal loolu itam moom la ñuy fas yéene rek di ko jëfe saa su nekk ndax ay bi lañ mënuñoo doon leen lujul ay taalibe ñi fi teew ñëpp itam ñëpp suñuy xarit lañ ñëpp suñuy dëkkandoo lañ ndax ànd bu rafet rek moo am solo ndax yaakaar naa ne damay wax ne nit boo dëkkee ci dëkk dëkk fa dëkkin wu rafet yaakaar naa ne boo demee fa nga dëkk itam ñañ fa fekk si nañ xam ne dëkk nga say dëkkandoo dëkkin wu rafet te yaakaar naa ne ñi fi teew ñëpp jugee jàmm gën ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm Euh, mënuñoo lim ñëpp ndax suñu sañoon ñëpp kay dañ la ñuy lim benn par benn waaye ñi nga xam ne ñoo jóge jàmm gën ñoom ñëpp dëkk jàmm gën dëkkandoog man foofu maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bis bi itam def nañ ci lu nekk ndax kenn ku ci nekk def nga ci sa doole def nga ci sa ñaq euh, ñu jënd ay teraanga yu bari indi ko jëf ko ci bis bi damay wax ne nag lépp lu fi waay indi mën nga ko teg ci samay loxo waaye jëfaloo ma ko Serigne Touba nga ko jëfal Serigne Touba ku koy jëfal sa bopp nga jëfal sëñ Tuubaa mi ñu ko jëfal am nag fay te yàlla na leen fay taxawu leen doole leen kàttan leen lépp lu fi waay jëf itam bu déwénee nga man lu ko ëpp fuuf ndax suñu xol dafa sedd suñu xol dafa sedd bu baax a baax a baax ndax gis nañ taxawaay bi ndax lu loo fi gis ñu liggéey ko rek ñoom ñoo ko liggéey ñoom ñoo ko def mënoon nañoo ñëw toog di xaar ñu leen di defaral di xaar waaye maanaam luñ gis ci kër gi rek loo xam ne lu ñu war a defar la duñ xaar ñu defaraloo leen ko kon loolu àndu àndu dëgg la àndu pas-pas la ànd boobu ñuy ànd nga xam ne àndub dëgg la ak àndub pas-pas ak àndub cofeel ak àndub nawlante ak àndub bëggante yàlla nañu ko yàlla ak Sëriñ Tuubaa taxaw téyel ñu ko dëgëralal ñu ko ndax man damay wax ne sama jëmm ji xeebu na lool maanaam xeebu naa lool kon lépp lu ma nit jëfal rek damay jàpp ne kóllëre ak ngor ak jëmmi doomu aadama moo tax nga jëf ko waaye bu doon ci dayo wala ci am-am wala ci man-man yaakaar naa ne duñ ko jëf kon ànd bi ñuy ànd bi ñuy doog di màggal si fii ci kër gi néegu ñax moo fi nekkoon ñu dem ba benn euh, ñaari néegi ñaari néeg nekk fi kon yokkute mu ngi am kon ñu ngi sant bu baax ñu daan màggal si itam di di di di rey ay ginaar ak di jënd yàpp ak lu nekk ñu dugg ci. te ñañ ko daan defandool ñëpp ba léegi ñun ñoo koy def ba léegi ñu dem bay jënd ay nag kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax te xam ne yokkute am na kon Serigne Touba lépp lu ko waaye di defar rek euh, moom am na kàttan am na fay te lépp ci lu mu nekkoon maanaam bëgg ñu am jàmm rek moo taxoon waaye du woon pour boppam ndax bu doon pour boppam mu yemale ko ci boppam wala ci ak njabootam waaye àdduna yëpp la demaloon àdduna yëpp itam la doon jëfal. te bëggoon ñu am mujj gu rafet réew mi am mujj gu rafet rek looloo ko taxoon di jëf gon lim fi jëf jëfal ñu ko ñun ñoo ko ameel ak cant ndax tey yaakaar naa ne jëf na jëf joo xamante ni ñun ñëpp ci jàmm jooju lañuy dund kon jàmm jooju ñuy dund chaque jour nañuy nañuy nañuy rafetal di yërëmante di dimbalante àdduna du dara lépp loo fi gis day jeex lépp loo fi gis day jeex kon nañu yërëmante te dimbalante te bàyyante xel bu baax a baax te nawloonte itam ndax jàmm rek moo xaj fii ci Sénégal ndax yaatuwul te ñun ñëpp dañoo war a jàmmoo di waxante lu rafet di jëflante jëflante bu rafet te bàyyi kàddu yu ñaaw yi ñuy jëflante ci internet bi léegi jamono ji képp koo xamante ni xamal nga nit lu ñaaw rek yaa nga yàkkamti foo wuññee suturaam macha allah liggéey bi ngeen di liggéey sëñ Modou bu ñu la eh, gisee ci màggalu Touba gis ne dëgg-dëgg Baye nga dëgg-dëgg taalibe eh, ñu bëri sax dañuy eh, yaakaar ne sëriñ si wala liggéey bi ngeen di liggéey souvent nit ki du am taalibe gi mu war a am wala du nekk dëgg-dëgg ci diine parce que bu ñu gisee yenn sëriñ yi wala ñenn ñi sa nga xamante ne bi liggéey bi ngay liggéey la ñuy liggéey di dendale seen bopp ak yenn sëriñ yi wala souvent du ñu gëm dara donc loolu nan nga koy jàngate en tant que taalibe murid wala Baye Fall waa xam nga loo gis rek ci deret la mooy li ma wax léegi jikko dafa am solo ci nit man damay wax ne man du ma sëriñu tarxiya du ma sëriñu tarbiya du ma sëriñu daara du ma sëriñ itam ab dongolaa sëñ Murtala Faal moom sëñ Moodu mbenn mooy sama sëriñ ma jébbalu ci moom yaakaar ko nekk ab taalibe bu xeebu wax naa la ko léegi samay biiri wax ñi may àndal ñëpp samay xarit lañ liggéey bi may liggéey itam liggéey la comme liggéey yëpp dama koo jàppee comme métier muy nit ku am aajoom ñëw diis ma ko ma fajal ko ko su ma ca paree pare naa ca la nga xam ne sama mbiri bopp la nag muy sama taalu bi ak sama jëflanteeg doomu aadama yi loolu sama digganteeg doomu aadama yi la sama liggéey nag sama liggéey la liggéey la liggéey boobu noonu taxut maanaam chaque jour dama koy wax man du ma seex du ma sëriñ ab taalibe laa waaw ab taalibe laa lii ñu nekk nag cër la bu ñu suñu boroom jox ñu ko nga xam ne dañ cee war a liggéey dimbale ci ñi nga xamante ni mënaluñ ko seen bopp loolu rek lañ ci jublu waaye du leneen. waaye nag moom taalibe gi moom moo fi nekk te it ab taalibe rek lañ bëgg a doon. macha allah euh, jërëjëf sëñ Modou Faye kàddu yi am na solo donc loolu moo nekkoon nag euh, spécial euh, cant bi nga xamante ne bii sëriñ Modou Faye Baye Fall doon na ko organisé fi nga xamante ne bii mooy fii ci Touba Mbacké ci dëkkuwaayam xanaa ñu bàyyi la nga wax lan ngay tàggatoo rek ci bés. waa xanaa di santaat yàlla rek di ñaanal rek réew mi yàlla suñu borom def fi jàmm. képp ku fi teew rek ñu ngi ñaan yàlla faj faj say aajo bépp mébét boo fi indi woon rek muy aajo joo xamante ni aajo biir ak bitti yàlla na ko suñu boroom saafaraal ñu ngi ñaan itam ci dooley Serigne Touba ci kàttanam ci barkeem bépp aajo bu fi waa indi rek yàlla fajal la ko waa loolu daal lañuy ñuy la ñuy la ñuy tàggatoo dañoo bëgg lool moo tax daanaka <laughs> kàddu yi sax du mën a sori. jërëjëfati Ousmane jërëjëf Serigne Modou Faye Baye Fall di leen jox dig daje incha allah ñuy ñaan yàlla ñu fekkewaat ko ay déwén yu bëree bëree bëree bari teewaat ak moo du fay Baye Fall fii ci Touba Alamuka.